woote bi nga xam ne woo nañ leen ko tey pour war a wax ci actualité bi nga xam ne moo am ci réew mi depuis quelque temps mais avant tout dañuy saluer clairvoyance le président de la république Macky Sall ci mu am gis-gis ak fi réew mi toll ci réew yi tollu sax laa war a wax seet ne ñépp dañu war a ànd liggéey taxawu réew mi mu ñëw ci moment boo xam ne moment bu difficile la loolu lépp moom président Macky Sall mu partage ko ak tous les sénégalais bàyyiwul kenn mooy lan mooy mu yaatal gouvernement bi nga xamante ne moom la yore te nag bu ñu fàtti ne depuis 2012 nga xam ne nekk na ak ay alliés yi mu nekkal te suñu doyen wax ko léegi allier yooyu àndoon ak moom muy PS AFP MRD ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñi fi nekk rek moo tax ñu cité ñooñu mu continuer di liggéey ak ñoom te bu ñu fàttine itam doon na liggéey ca départ ba ak même waa parti réew mi nga xam ne tey ñu ngi saluer encore retour le président Idriss Seck man du ma wax ne Idriss Seck dafa dugg mais dama wax ne dafa dellusi si parce que il dafa bokk ci acteurs yi nga xam ne en deux 2012 ñu ngi ñoo porté woon président Macky la à la magistrature suprême donc tey du ma wax euh, euh, ne dafa dugg si mais pour man dafa dellu si ñuy saluer loolu aussi de passage su ko defee nag loolu bi mu amee mu bari trop ay wax mais ñun suñu position mooy ki nga xam ne mooy suñu njiiñ di suñu président de la république di suñu président wu parti li mu tracé liiñ bi mu tracé ñun moom la ñu jàpp ne mooy meilleure façon boo xam ne mën na gën a yaatal démocratie ci senegal te mooy lan mooy mu yaatal yaatal googu mu yaatal ñun nangu nañu ko ndax nag nit ki bu fekkee daf la jiite su amee xalaatam ndax la tax nga jiital ko danga ko doyloo le président 58 pour cent des sénégalais ñoo ko doylu bon tey bépp dogal boo xam ne indi na ko ñun dañu war a adhéré wu ci dogal boobu loolu moo tax ñu woote pour ñu xamle ñun Benno Bokk Yaakaar bi nekk fii ci commune Kër Moussa lan mooy suñu position suñu position na dañ may may rek tuuti ma laaj ko mbooloo mi ndax li président Macky Sall teg. muy gouvernement d'élargie mu yaatal ko dugal ci ñeneen ñun commune Kër Moussa d'accord nañ ci wala déet buñ ci d'accord nag ñëpp ko jël ko par je pense que nañ ci parce que nag nit ki bu la jiitee xalaat naa ne ki la jiite sax julli su fekkee ne bu sëggee laa damay jël damay àbbu Eh, waxu kenn ku bokk ci ñun koo xam ne souvent damay jël lu bari ci ay waxam ndax nit ki bu la jiitee bu bu bu sëggee bu sujootee nga taxaw bu sëggee nga siggi kooku mënul nekk ki la jiite xalaat naa ne imaam bi bu sëggee da ngay sigg bu siggee nga siggi ainsi bu juumee nag nga sàbbaal ko waaye feeg juumul da ko war a topp am déet kon nag loolu moo tax li président Macky la dogal ñun amuñu ci lu ñuy commentaire lu dul accepté nañu ko à 100 pour cent te lii wane na ko laa may saluer ñu bees ñi nga xamante ne ñëw nañu fekk ci président Macky Sall te ki ma ci gën a mën mooy suñu frère le président Idriss Seck ak ñi mu àndal ñëpp ci acte bi nga xam ne pour man acte de citoyenneté dëgg moom moo mën a tax nit def lii ndax ku xam Idriss Seck xam fi mu toll ci politique su doxee tey ba mu dellusiwaat ñëw di ànd ak président Macky Sall gis nañu ne loolu li tax mu def ko mooy xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo war a ànd pour liggéey ko te loolu dafa war a wàcc ba ci base bi ci suuf di saluer aussi retour ñi nga xam ne c'est des ministres nekkoon fi. nekkatuñ ci gouvernement bi commentaire bu ne ñu def ko ci waaye xalaat naa ne démb wala bërka démb bi président Macky Sall la wooyee wootee euh, euh, secrétariat exécutif national leer na ne ñooñu waxuñu dara li président Macky Sall la ñuy wax muy kan ku ci mel ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne euh, Oumar Youm Ali Ngouille njaay Amadou Ba ñoom ñëpp ñëw nañu ci wetu président Macky Sall ñëpp gis leen ñu def déclaration xam xamle seen ancrage ci ci ci parti bi xam xamle aussi seen nekk ci wetu président de la république. loolu li muy wane mooy li ñuy commentaire yëpp ñoo ñu ñu ngi ba tey ñu ngi ànd ak président Macky Sall loyalement ñun nag suñu ànd ak président Macky Sall eh, faw ñu leeral ko dañu ànd ak moom ngir intérêt. suñuy population te loolu yàlla mu ñu ciy dimbali ndax bu ñu fàtti ne dañu nekk ci commune boo xam ne euh, dafa xaw a doy waar ndax ni mu bindoo la commune de Kër Moussa bokk na ci commune yi gën a mag ci Sénégal mais bokk na ci commune yi gën a compliqué parce que mu ngi bokk ci commune yi nga xam ne dañu ëmb commune ci biir pour ñu ko xamul tey boo xoolee la commune de Pout mu ngi nekk à l'intérieur de la commune de Kër Moussa loolu rek ay jafe-jafe la mais te yàlla dimbali nañu la majeure partie ci suñuy dëkk yi li ñu ci président digoon def na ko ñun aussi war na ñu delloo ko njukkal waaye nag bu ñu fàtti ne depuis ñu ànd ak président Macky Sall 2016 à nos jours passé nañu fi quatre élections yoo xam ne dañ ko gagné haut la main en commençant par le référendum ak la ca xewoon yépp yàlla dimbali ñu ñu remporté ko mu ñëw élection euh, au conseil des collectivités territoriales mu fab Kër Moussa dénk ko tête de liste départementale bu Thiès yàlla defal ñu ci ndam ñu rëy ñu jóge ci ñëw élection locale euh, pardon élection législative en 2017 ñu gagné ko haut la mais malgré que ñun amuñu ci benn candidat ñu ñëwati en 2019 enfin pour les élections présidentielles ah Kër Moussa distingué wu ci am résultat boo xam ne yaakaar ne dans le département de Thiès kenn du ko weral liggéey boobu nag dañ ko fas yéenee continuer tant que ñu ngi dese benn noyyi ci kaw suuf ànd ceeg suñu partenaires yi pour que président Macky Sall yaakaar bi nga xam ne am na ko au niveau de Kër Moussa yaakaar boobu toujours muy gis lu kawe njortam te yaakaar naa ne loolu mooy continuer donc ñu ngi remercier tous les militants sympathisants les chefs de village les femmes les jeunes ñoom ñëpp teew nañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal nag ne liggéey bi nañ ci nekk guddi ak bëccëg sax ci on temps vers des élections mais damay wax toujours ne même si les élections s'organisent demain on va gagner incha allah pare nañu pour dem élection ak waxtu wu mënti doon te bir nañu ne suñ ci demee ak coalition bi ñu àndal muy Benno Bokk Yaakaar pour ne dañuy gagné élection yi kooku nekkul ordre du jour donc ñu ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di ñaan yàlla itam suñu ndaje mi yàlla bu mu nekk suñu mujjug ndaje euh, lii déclaration bi la bëggoon def pour ñëpp xamee ko noonu ne li nga xam ne président Macky Sall def na ko yaatal gouvernement dugal ci ñeneen loolu ñun ànd nañ ci à cent pour cent te dinañ ko ci soutenir lépp loo xam ne mën nañ ko taxawu daañ ko taxawu taxawu ministres yi nga xam ne ñoom la fi teg ndax jàpp nañu ne c'est des ministères de la république yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu nekk APRO ñu nekk feneen ñun moom la ñu yemal li ñu amal solo rek mooy ñoo xam ne dañuy liggéey dans l'intérêt du yi may lancé euh, ma am sax précision bu ma def foofu avant ñuy def point de presse bi. allié yi nga xam ne ñu ngi fii yëpp informé nañu leen même suñu allié réew mi par le biais de seen secteur général nga xam ne moom la ñu xam gii ñoon woo nañu ko waxtaan nañ ci ak moom amoon na intention sax pour fekk ndaje mi ça aussi dama koy remercier ci loolu mais xam nga parti du yow rek yow yaa ko yor dafa am ñu mu àndal peut-être des nañu ay réglage yoo xam ne ci la ñu nekk mais toujours ñun dàq ñu ne war nañu mën a ànd ak ñoom parce que le président Macky Sall bu mënee ànd ak président Idriss Seck yaakar naa ñun ñi nga xamante ne ñoo di seen njaboot war nañu mën a organiser wu pour dimbali leen ca loola. parce que ñoom li ñu bëgg il faut que ñun ñu jàppale leen ci nan lañ leen ciy jàppale mooy ñoom nañu ànde ca kaw ñun ñi ne ci ñu ànde ko noonu pour mën leen dimbali. kordinateur de la commune notre soutien notre adhésion. à la politique définie, à, définie par le président Macky Sall, à savoir former un gouvernement élargi où l'opposition et d'autres forces y entrent dedans pour que le Sénégal aille la l'avant. Là, vraiment, nous remercions le président de la République, Macky Sall, et nous le soutenons aussi euh, sur cette démarche. En ce qui concerne euh, la rentrée d'Idriss Seck dans le gouvernement, je dis que euh, c'est un retour n'oublions pas que le parti Réumi fait partie quand même de la coalition qui a porté le président Macky Sall en 2012. Il y a des divergences politiques euh, qui a fait qu'il y a une séparation. Aujourd'hui, y a une retrouvaille entre les deux leaders, euh, entre, entre les leaders. Je pense que il va de notre intérêt en tant que militant, en tant que membre de parti, vraiment d'aider nos dirigeants vraiment à consolider euh, cette retrouvaille pour que le Sénégal aille de l'avant. Nous le saluons très bien et nous comptons aussi toujours euh, travailler avec nos frères, nos camarades du Parti ici dans la commune de Kermoussou. Peut-être il y a des préalables à régler, c'est normal parce que c'est ça la politique. Je dis que euh, grâce à Dieu, nous avons passé quelques quatre élections depuis notre euh, Euh, collaboration avec euh, le président de la République, à savoir le référendum, euh, l'élection des hauts conseillers, bien que c'est des élections particulières, comme des élections au suffrage indirect, mais le président Macky Sall nous a fait l'honneur de diriger la liste départementale au niveau de Thiès Dieu merci, nous l'avons gagné brillamment en 2016. Euh, avant ces élections aussi, il y avait le référendum que nous avons gagné. Ensuite, en 2017, l'élection législative que nous avons gagnée. Enfin, en 2019, l'élection présidentielle que nous avons gagnée haut la main ici dans la commune de Kermoussou. Euh, je précise que si les élections s'organisent demain, nous, on va gagner, vraiment avec eux. Je l'ai dit tantôt, ce sont nos frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Aujourd'hui, il y a une retrouvaille. Nous euh, pour bientôt, euh, ce problème sera derrière nous. On va régler ça entre nous pour que vraiment qu'on travaille main dans la main pour aider nos dirigeants, comme je l'ai pour que le Sénégal aille de l'avant.